subhaanallah baal ma de man fàtte woon naa ni ci weeru koor la nekk te weeru koor kenn waru ci xuloo kenn waru ci xeex. baal ma ah, sa xel dem nañ si weeru koor la nekk xam nga ni xel ni am naa rëccu ni waaye yow dayoo ma sax lañ ci la wax dam la narul waay. waaw ba dëgg la waaye xam nga ni place bi sama place la. fii place amu fi fii ñu ñoo ko bokk ñun ñëpp defar ko nettoyé ko ku jut sa morom toog waaw jóg nga toog naa foofu laa yem du sa morom nag moytu ma am nga sens di tàggal ma sa kaw rek loolu wa waaw ma mais xam nga ni yow doyoo ma sax lanc wa yow tam do xam nga ni fi man maa ko moom waaye fii kenn moom fi fi ngay tok rek bàyyi mom ma tok ah daan tuuti na way da yaa yaangi ci bir milugo yo jeex na jarul di commentaire ak yii ay jaan tuuti nak jaan ngande na yooyu matu ko ah salaamaaleykum alaykum salaam na ngeen def sant bu baax sant wa suwaane ah Suwaane. na ngeen def alhamdulilah Suwaane. doon laaj ci benn sëriñ bu dëkk fii. Ah. waaw ah. metti ko. mu ne. sëriñ metti ko. soxna si. Hmm. ñun duñ sa morom. ñun sa ay morom yi bàyyi lañu. Ah, xam nga duñu woor ba heure bii nga ñëw toxo fii naan da ñuy ñaawal. koor gi kay metti na loolu moom ñëpp ko xam xanaa gisoo ma. xoolal xam nga ni koor gi metti na xoolal ni ma mel. koor gu metti koor gu metti yomb ci yem. pourtant sëriñ metti koor am na de. ñoo bokkoon dëkk fee dafa tuxu temps yi fii moo tax ma ne xaaral ma ñëw laaj leen ba xam xamul leen waaye soxna si bu ñu solal ñun xamuñu suñu metti koor dégg nga te ñun ay kilifa lañu juddoo fii si dëkk bi yaroo fii ci dëkk bi ah xamuñu kuy metti koor pourtant kilifa yu mel na yéen de laa bàyyi ca kër ga ah. ginnaaw yéen a nekk ci grand place te yéen a xam lépp su ma ñëwee fii laaj leen sëriñ metti koor xanaa daa ngeen ma ko mën a wax gone yi tey yée ngi ni voilà xas nañu nag xale yi tey yaa ngi ni xas waaw len nag maa la koy yëgal fii sa tànk bu mu fi dëggati nga nuy ay metti koor gi moo gën a metti ñëpp xam ne da nga bàyyi kilifa si kër gi dama nga dem toppatoo fii sa morom new oh, yàqu ba dee waay waxatee ngi nii ay magum jëm woon ba xam ak di ah, xam ah, ah, ah saa nag defal naa xaaral de sëriñ metti saa yow ñun ñun si dëkk bi fi lañ juddoo fi lañ yaroo lañu màggee ba toll ñu toll te nag am na loo fàtte dëkk bi ñi fi gën a mag ñun si la lu bokk. ah waaw waaw. Serigne Metti Koor bu ñëwee bu dëkk suñu dëkk bi te xamuñu ko war nañu seetaa suñu bopp. jar naa lijjant de te nag ma wax la ndéem laajte nañ ko rek ñakul ni am na waaye man tur bee ma yéem de Serigne Metti bu ne dégg naa ko de waaye bii. ah oh, première la. Metti Koor. ñu wuti renseignement. demati. ah nu ñuy def comme dañu toog si grand place bi information yi di ñëw hmm, nan ko lijjanti ba mu leer. ñu def. faut aller vers les informations. salaamaaleykum. waaleykum salaam. métti koor. ah soxna si Diop. na nga def. Diop. baa yaa ngi si jàmm. sant yàlla. alhamdulilah. alhamdulilah. naka njaboot bi. sant yàlla. baa ñëpp a si jàmm. alhamdulilah. ah man de li nga ma laajoon indil naa la ko. ah yegg si nga. waaw yegg de. yow yaa doon borom su ah ah. suppu kanja bi waaw waaw waaw. <laughs> Ah. dëgg la kay. mbaa kom nga ko. waaw am na kom fumier. day la am na yoxos. mooy sama ndey. am na paañ. am na koti. kooku laa ragal nag waxaat ka. koti ah comme <laughs> gi de. maa ngi ko jëndee côté waalo gi. yokk ngeen koom-koom waalo. ah <laughs> koom-koom waalo yokku na. maa lox lool comme kontaan nga rek. day tax réew mi day gën a tox. ah. <laughs> war nañ lay jox droit d'auteur. la <laughs> noonu la auditeur lañ cee wax am auditeur. ñu ah? daal dafa emballé. ñu laa ko emballé. waaw ah, waaye doo mën yee mën a emballé waaye. Hmm? sekkir ma woo. nga moom xanaa tiiru Casamance la. tiiru Casamance. Kanja na. Kanja na. de laa koy defaree sama góor yàq yaay Baba Dia. Hmm, waaw. Awo, ni de laa koy defar. sa borom kër. sama borom kër waaw. gis nga ni nga fi ñëwee soxna si. Mhm. sopp mu ko dara. ah. Mhm. lu waral lool. ndax xam nga lii weeru koor gi. Mhm. nga sol tubéy ji. sol yu ne sa bi nga ne ko neen rafetul. la rek Ah, ñi si mbedd mi ngay romb lii lii daal wax dëgg yàlla moom. Hmm. lii daal teggunuwul boo bëgg ma lay seetal. Hmm. bu fi ñëwee ci nii dégg nga del yiw. dëgg la su beneen tee naat yiw. jigéen day yiw. lii hmm. moom du ma ko sax laal. lu waral lool. këriñ ji laa kaa seeti. këriñ. moo ko togg di mooy togg ganaar. ah waaw waaw waaw. waaw jigéen su ndaw si nag. ah man de temps yii xaw naa fa joteeg sama benn njëkke waaye jote yu ndaw rek la. waaw kii de dafa man de ki ma jaaxal mooy sama goro. temps yi dafa indi benn xale bi nga xam ne. Hmm. la si sama jëkkër. Hmm. daaw nañu génn nag temps yu yàggee boobu xamaguma. Hmm. ba nga ko xamee nag laa ko dangu ca moom. daf ko bëgg indiwaat pour bëgg ko may sama jëkkër. moom laa gis. ah. kooku doomu bàjjanam la ndeysaan. <laughs> dëgg la doomu bàjjanam la loolu moo tax ma ñëw fii pour nga xoolal ma. defoon nañ ci liggéey bu bon. ñoom. Mhm. weddiwu ma ko de. waaye dinaa la ko dindil de. ah. waaw. loolu rek laa bëgg moo doon sama tànk tey.